salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen waa daara ngi leen di leen ziar bu baax ñu ñu ñu nekk ci daara jëpp sëriñ Cheikh Sarr ñoo ngi lay ziar di ziar jëwriñ nekk borom xam-xam kilifa yëpp rek darsi bi jàll am na solo lool sëriñ Sarr darsi bu mujj dugg am na solo trop ñu ngi ñëw eh, àggale darsu usul fiq bi ñu fi tàmbali woon egsi nañ ba dugg ci amr ba jeexal amr tey ñu ngi gis. walum nax muy tere muallif bi ne wan nax yu tarki bi qawli mimman huwa dunahu ala sabili alwujubi wa yadullu ala fasadi almanhi wa taridu sigatu alamri والمراد به الإباحة أو التهديد aw taswiyatu aw takwin mu ne wan nax yu nax yu buñ ko waxee istida isti istidaa u tarki mooy woote ak bàyyi sàkk ak bàyyi dara bi xawlin ci wax joxe ndigal ne nañ bàyyi lii koo koy jox ndigal mim man ci kan xane huwa moom duunahoo moo ko yées ala sabilil wujubi ci melokaanu war ci yoonu war wa yadullu ca ndigal day tegtale ala fasadil manhi ci yàquk lañu tere ci daal nee nax yi buñ ko waxee muy tere nee na tere mooy woote ne nañ bàyyi lii ci wax ne lii dañ koo tere nañ ko bàyyi am na ay siixa yu bari nag ki ngay tere nag nee na mooy ki nga xam ne si nii yaa ko féete kaw ku la yées ku féete suuf min man huwa duunahu tere geet day doon ci melokaanu war war ne lii dañ ko war a bàyyi waaye li ñu tereeg li ñu tereet day doon loo xam ne si nii day tegtale ak yàqu maanaam liñ tere ku ko defit du baax lu baax imma benn nga am ca bàkkaar imma bu dee ak jaamu yàlla la dus ko nangu bokk na ci siira yi nga xam ne si nii dañ fay dañ koy tëggee tere mooy boo xam ne si day ñëw ne bu leen def bu leen def siira boo xam ne laa lay doon comme lu mel ne waxi suñu borom ñim ne laa taqrabu zina boobu siixa ci yenn ci ni ñuy teree la bokk kooku day wane ne lii dafa xaraam wala siixa boo xam ne day ñëw leeral lafz bi baatu xaraam nekk ci ñu xam ne lii dafa xaraam lu mel ne xurrimat aleykum ummahaatukum waaw kooku siixa nahi la wala siixa boo xam ne day wax ne lii dëgganut indi ñak dagan gi comme lu melne ya ayyuhal ladhina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha wala lafzu ñëw ci hadith daal wax naha ka hadith abi ka hadith abi sa'id al-khudri saxid alxudri radiallahu anhu qaala naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmi fitri wa yawmin nahri comme lu man hadith bobu ne yon tamit tere wor bisu bisu bisu tabaski yoy yep ay sikhala yo xam dañ cey tëggee nahi Nahi tere nahi nak bu ñewé ci itlaq ak araamal lañ koy jappé rawante nag boo xam dafa wéetoo xarina manam amu ben xarina bo xam ci day luñ sibla boo amee xarina buy tegtale luñ sibla nag ñu xam ne luñ sibla waaye moomul xarina dañ koy jàppee lu xaraam comme nax yi nag wuute na ak amru ci benn côté ndax amru moom sartuñ ca woon takraar gi ak fawru gi waaye moom nax yi moom dañ cay sart takraar gi ak fawru gi liñ la tere danga koy bàyyi ci saase te dañ la koy continuer di la ko tere rek amru nag moom buñ la joxee ndigal néewul ne danga ko def ci saa ci saa si lépp loo xam ne si nii dafa ñëw xadis ab tere nekk ca boo xam ne si dañuy wax ne bu leen ko def kooku itam ci bunti nax yi lay dugg ndax wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kon loolu moo tax ndax yoon suñ borom moo digle ñu ñu terewoo lépp loo xam ne suñ borom daf ko lu yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo tere moo tax lépp loo xam ne yonente bi daf koo tere moytu ko waajib lay doon moo tax moo tax mu ne ala sabilil wujub al imaamu shafii rahimahullah day wax ne mu ne aslu nahyi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anna kulla ma naha anhu fa huwa muhramun mu ne lépp loo xam ne si nii li cosaan ci tereg yonante bi sallallahu alayhi mooy lépp lu mu tere rek lu xaraam la xatta tati xatta tati anhu dalalatun tadullu ala annahu innama nahi anhu li manhi gayri tahrim mooy lu dul ne ab dalil la ay daa ñëw wala ay tegtale daa ñëw yiy wane ne lii kat dañ koo tere tere goo xam ne du tere du tereg araamal kon kooku dañ koy jàppee lu sit mhm. mu ne mën ngaa jël misaal ci terek araamal li wax ne laa tusallu ilal xubur wala tajlisu alayha li mu wax ne bu leen julli ca bàmmeel ya bu leen di toog ci ko bàmmeel ya loolu nee na siixab araamal la waaye boo ñëwee ci siixa bi nga xam ne si siixab buñ sibla mooy lu mel ne li yonente bi wax ne laa yamassanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabuul bu kenn ci yéen di tuur ndox teewee sakaraam ndoxam day joor lay wone na maanaam loolu lu ñu sib mooy beneen xadis bu ñëw daan ne hal huwa illa bidaatun minka xanaa loolu nekkul benn cër rek benn cër la ci sa yaram ak cër la ci yow loolu kon mooy wane ne loolu te rek sibeel la ñaareel ba mooy euh, nax yu lépp lum ñëw tere ko loola kasaadul man yu anhu la maanaam loola buñ ko defé du baax ca ca du taxit nga dañ ca bu doon jëf jun la jëf ju waro a tegu sa kaw la te mhm. mhm. lolu borom ñeenti ngir yi dëppoo nañ ci na hadith bi ñew ci سني آه، سولو حديث بني من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مني امر مني وترد صيغه الامر والمراد به الاباحه او التخدير او التسويه او التكوين من صيغه الامر melokaanu ndigal dana rot te léeg-léegi ñu jublu ci wal muraadu bi al ibaax léeg-léeg ñu jublu ci ak dagan ndigal ñëw wane ne lii daa dagan kuloo min kuloo min at-tayyibaati maa razaqnaakum ak dagan siixab dagan mu ñëw di jubale di xuppe di waare comme qul tamattahu fa inna masirukum ila nnaar fa inna masirakum ila nnaar bànneexu leen rek seen mujj mooy sawara loolu ak xuppaatal ak waare la waaw ndigal la waaye ndigal loolu du loo ndigal loo xam ne naan la jëf ko dañ la koy xuppe wala mu ñëw rek di yamale ngir nga di di doomu waaw fasbiru aw la tasbiru wala ndigal it léeg-léeg dina ñëw ngir suñ borom joxe amel ci loo xam ne si amul woon mu joxe ci ndigal ngir mu am comme kunu xiradatan xaasiin waaw yëpp ay siixa yëpp siixay am amru muy siixay ndigal ci bunt bi lay dugg kon xam naa ne ñu taxawal darse bi foofu ba beneen yoon insha allahu